ok jërë ngeen jëf euh, yéen suñu mbokku internet bu 221 People ñu leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di delluwaat ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat na bi kontaan tamit bu baax a baax kon niñ ko faral di defal kilifa yëpp nag tey ñu fu seen dalal beneen kilifa boo xam ni ngeen ngeen ko gis ci site bi raar na bu baax a baax euh, lépp ci xam-xam lañ koy wér nag di leen ci yaatal balaa maa ñëw foofu nag damay bàyyi mu nuyoo mbokk internet asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi leen ñëw di leen siyaar euh, di feddale suñu kóllëre suñu diggante ak yéen di ñaan Sénégal suñu borom def ci jàmm yàlla Sénégal sax si jàmm aha bisimilah. jërëjëf euh, sëñ Cheikh ñu lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw suñu set yoo nag ñu ci baax a baax dalalaat la li ma ko def say naataango mhm. te nañu fas yéene waxtaan ci ponk yu bëree bëri bëri waaye lépp dañ koy wéer ci xam-xam lii dinañ ko yóbbu ci ñaan bi nga xam ne yaa ngi koy faral di faj bi nga xam ne yaa ngi koy def wax ko euh, alhamdulilah euh, doomu aadama waxtu nekk bu fekkee yàlla suñu borom dafay dogal muy liggéey liggéey bi dama dem bu ëpp ko doole dina waral ñi nga xam ne ñoo koy soxla ci yenn réew yi ñu ko fay soxla muy waral di dem di déplacé wu di leen liggéeyal waaye lépp rek xam-xam la woon ak li nga xam ne mooy yàq-yàq jamono jeeg sëriñ su bari si internet beeg ku nekk di wax ay mbiram te boobaa day jot ku ci nekk toog fa nga war a toog jëflante ñi nga xam ne ñoom nga war a jëflanteel waaye alhamdulilah lépp rek euh, mbir la woon ak dema ba nga xam ne suñuy yu ci baree bari liggéey ëpp ñu dooleek ñu jël affaire lu jëm ci internet yëpp bu jën ko tekki ci suuf waaye ñuy jëflante ñu bëj bu wax ne yoon na ñu génn leeral dëgg-dëgg lan mooy xam-xam loolu moo waral suñu génn euh, tey la ci bëgg a laaj mhm. euh, la ak seen ma la dégg fi ma bëggee euh, fi ma bëgg waxee mooy mhm. àdduna dafay loo xam ne dafay dox alxuraan dafa xam ne bis bi yàlla sàkk àdduna dafay wëndeelu par journée suur bu nekk rek jàppar ne àdduna dafay wëndeelu comme képp koo xam ne yaa ngi dox ci xam-xam jàppal ne euh, am na ñoo xam ne ñoom ngay jëflanteel sa jëflante dina àgg dina àgg fu mu war a àgg lenn la nag ay déplacé wu ci yenn voyage yi nga xam ne ñu ngi koy voyage ci suñu diggante ak ñuy jëflanteel loolu moo waral suñu gëj a génn. Mm-hmm. waaw lépp tawfeex daal. tawfeex incha allah. damay ñëw ci fenn nag euh, a mm-hmm. ñu ñëw ci ci lan ngay seede ba nit ñi hmm. alhamdulilah euh, seet am na ci seet yoo xam ne listixaar la am na ci seet yoo xam ne euh, am na ci seet yoo xam ne seetu ndox la am na ci seet yoo xam ne xam-xamu biddiw la seet nag dafa bari ay façon sëriñ bi mën na laa seetal wax ne la man gis naa ci loo xam ne rab la wala mu ne la gis naa ci loo xam ne àndandoo bu la yàqal la dèjà kon kooku mooy sëriñ bi nga xam ne dëgg moom daf laa tëj parce que ku lox gis na àndandoo ba la yàqal sa àndandoo bi ma la yàqal àndandoo rawaxaan rab tabixa quatre éléments yi mooy loo xam ne sëriñ si dañ koy jaxase complètement loolu képp koo xam ne xamoo ko ci nit ki mënoo ko liggéeyal ba mu jàpp soit mënoo koo seetal ba gis ko war nga xool ay mbiram nuy yool dëgg-dëgg nga defal ko mm-hmm. waaye alhamdulilah ngi sant yàlla bu baax a baax yàlla defal nañ ci sutura bu baax a baax ba képp koo xam ne xoolal na rek dañ xam yow say mbir fan la taxawee. d'accord di euh, lii ay butéelu parfum la bii dunyaa lañ koy wax. Mhm. moom dafay dafa gaaw trop ci wàllum li nga xam ne moom mooy euh, xaatim bi nga xam ne moom nga gis muy sirru bi moom euh, lii douze mille basmala la. képp koo xam ne yaa ngi koy sangoo da nga koy booleeg yi nga xam ne moom nga gis muy dunya ak bii nga xam ne euh, beneen parfum lu mu tudd tur bi mhm. yaa ngi dégg képp koo xam ne sangoo nga ko fukki fan ak ñaar mhm. sangoo yi fukki fan ak ñaar mhm. nga gas suul fukki fan ak ñaar nga tëju jàppal ne xamal ne yow say mbir dafa tëju parce que tur rawaxaan doomu aadama yeeg ah biddiw yeeg rawxaan yeeg xuddaam yeeg lépp moo ci nekk ba ci ay tëri jinne ak turu malaayika lépp leen liggéeyee xaatim moo tax képp koo xam ne sam nga ci rek jàppal ne say mbir moom war naa nekk mbir yoo xam ne euh, ay mbir yu baax a baax la alhamdulilah macha allah kon nag parfum bi lii la mu nekk loo xam ne ay cangal la doomu aadama waru ko sangoo ba ji tëju waaye ni mu amee nii ci xam-xam bi nga xam ne xam-xamu leer la noonu la amee ci beneen xam-xam bi nga xam ne xam-xam bu ñuul la. ah léegi wéyandi mhm. ci cours des gën lii pour yokk awra la. Mhm. mooy képp koo xam ne sa awra dafa gàtt. nga bëgg ñu yokkal la sa awra bi. di mhm. dinañ la ko yokkal. mais bu fekkee dañ la ko yokkal su tur laay soxla ak sa turu yaay. su ma soxlaa sa tur ak sa turu yaay. ba am lu ma ci def. di dinañ jël li nga xam ne moom la ne liggéeyal ñu defal la ko fii yaa ngi dégg. Mm-hmm, mm-hmm. ñu jox la li lay jox yónnee la ko. Mm-hmm. bu fekkee fii nga nekk ci euh, senegal nga jël si ko. bu fekkee nekkoo senegal nga dem biti nga dem bitim euh, nga nekk bitim réew. ñu yónnee la ko nga wax li ngay wax ñu toog fi ñu dëbbal ko ñetti yoon waaye lii moom pour yokk awra la si laa nekk ba tey yokk awra voilà voilà. moom moo gën pour yokk awra. moo ko tax a jóg képp koo xam ne sa awra dafa gàtt. nga bëgg mu toll nii parce que même bii sax pour yokk awra la soit mu xam nga bëgg mu toll nii soit mu toll nii loo bëgg mu toll ko kàttanu yàlla dana la ko yokkal bant bi pour yokk awra la awra moo ko tax a jóg leen tax ko lu dul awra voilà mi ngi nii voilà non da ngay natt ah. yaay xool ah. fa nga bëgg mu ñam fa allez ñu yemale ko fa. léegi fi nga xam ne bëggoo ñu yemale ko fa. Mhm. ñu bañ ko faa yemale. bu fekkee da nga maa sori nag yow danga may woo. Mhm. ñu def appel vidéo ma wan na ko mu xool fi nga bëgg ma yem fa ñu yemale ko fa. alhamdulilah lépp doon loo xam ne sutura la. am voilà. gis naa ndombo yu euh, képp koo xam ne kaaraange wut ci àddina. Mhm. amoo kaaraange. war nga fu ci àddina sëriñ bu ne dem nga fa. waatal naa la ci yàlla takkal ndomb yi foo ko mën di takkee nit du man ci yow dara dara dara ba illaa yawmi képp koo xam ne kaaraange la mm. dañ koy wut mooy képp koo xam ne yaa ngi sa diggante sa biir ak tubaab yi nga bëgg ñu respecté la mm. nga bëgg lépp loo jaay mu jar bii pour nit ku xonq la ah, mm. nit ku xonq moo ko tax a jóg lii képp koo xam ne takk nga ci nit ku xonq foo jaar dina respecté te lépp loo xam ne bëgg koo am ci ñoom mën nga koo am ci ñoom lépp loo xam ne bëgg nga ko am ci ñoom da ko am ci ñoom. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla suñu borom. Mm-hmm. léegi bii bii pour meles la yaa ngi dégg meles. waaw bii pour meles la. Mm-hmm. képp koo xam ne takk nga ko. bu fekkee bëccëg la. dëy ngay ngay gaw. bu fekkee guddi la. nga gaw kaat yëpp. foo mën di jaar ci àddina. loo mën di yor kenn du la teg bët. loo mën di yor ci àddina. moo xam da ngay foroot mhm. moo xam da ngay def leneen la warul def mhm. yaa ngi dégg moo xam euh, menace dafa bari façon moo xam sa soxna génn guddi nga bëgg koo topp te du la gis moo xam nit dee def dara bëggoo nga bëgg a xam ci lu mu nekk bëgg a gëstu ay mbiram bu la neexee mën nga koo takk mhm. nga koy topp nga koy gis te moom du la gis jëlee ñuy wax menace képp ku ko takk waat naa la ci yàlla kenn du la gis di menace la. même bii sax. Mm-hmm. moo nekkaan nii bii tamit meles la bii meles la meles képp koo ko takk kenn du la gis. Mm-hmm. duggal fa la neex defal lu la neex ci àddina kenn du la teg bët kàttu neer incha allah. waaw sunguf bi. la ñuy sunguf bii mooy sunguf boo xam ne képp koo xam ne da ngaa bëgg am alal alal su lu gaaw. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla buñ la ko defalee am nañ ko booleel foo mun di jaar ci àddina da nga ubbeeku da koy sangoo sept jours nga koy sangoo kayitu dix mille francs da ciy am kayitu cinq mille francs am ci kayitu mille francs am ci kayitu cinq cent am ci beneen kayit bi kayitu ñaari junni am ci boo ko sangooy foo mën di jaar ci àddina da am alal ci lu gaaw gaaw te sa yaram dina neex doomu aadama bu fekkee dafa tëju moom lu mu ko dig lu mu yaakaar day tas fu mu dem ñu war koo jox dara du ci jot ku war a takk ngoro ko ba nga xam ne bu àggee pour moom ñu may ko. Mhm. bu àggee ñu dàqoo lépp loolu lépp ci xeetu tëju la waaye képp koo xam ne sangoo nga ko da ubbeeku ba nga da nga yéemu sa askan yëpp. Mhm. te ba nga xam ne fa nga bokk yaa gën a mhm. a waxtaanee bii sunguf la boo xam ne tamit bayre la. koo xam ne dafa bëgg bayre yi liñ ku xonq moo xam naar la moo xam sinuwaa la. foo mën di nekk ci àddina nga bëgg ñu dëlmal la. foo ko mën di sangoo foo mën di jaar da am daraj bi seen kaw loolu moom loolu moo ko tax a jóg. Mhm. ci xaatim waaw bii euh, xaatim bii mooy xaatim boo xam ne képp koo xam ne say mbir dafa tëju dem nga fu ci àddina sëriñ bu ne war nga dem nga fu ci àddina ñaana na la fu ne gis dara sëy mbir tëju rap rap rap rap mënoo am dara ci àddina mhm. boo ko sangoo deux ñu tëjul la xalwa fu mën di jaar say mbir dina ubbeeku moo xam ñu lay gis moo xam gisuñ la ci kàttanu yàlla suñ borom. Mhm. Euh, xaatim bii nii mu may xaatim bi nga xam ne bii nii bii nekkul ab xaatim bii la ñuy wax basmala moom it damay duggaat ci la ba tey képp koo xam ne dangaa tëju ci àddina mhm. nga tëjoo tëjoo tëjoo tëju ba kenn mënu ubbi mhm. wala sa rawxaan benn sëriñ xamu ko xam nga da nga dem ci sëriñ nga ne ko noobal ma ab tubaab mu dem noot ko xam nga noob ak noot bokkuñ léegi sëriñ su bari nag dañoo yor secret noot waaye yoruñ secret noob waaw léegi bu àggee kooku dala koy defal noot mais dala ko noobal léegi lii boo ko sangooy foo mën di jaar ci àddina loo bëgg am ci àddina ak loo si yéene buñ la koy defal sarax ngay génn sarax sarax ba ngay génne ci ne la yéene li la yéene de jox la nga utiliser ko foo mën di ci àddina da nga tàkk ci kàttanu yàlla même bii nii moom boobu lay àndal te boo ko sangoo moom it bii lay àndal parfum gis nga parfum bii nii parfum bu baax la trop parfum bu baax la trop parce que alxuraan wala rawxaan loo xam ne dañ ko def ci tur rawxaan di ko utiliser moo xam ci tur rawxaan la wala wala ci euh, turu xuddaam nga jox ko doomu aadama bu ko utiliser dafa war ànd ak ay parfum yoo xam ne ak ay cuuraay yoo xam ne nit kii bu ko defee mbiram day tàkk fat-fat nekkul loo xam ne lu mën a gaaw nekkul loo xam ne dañ koy wérd mm-hmm. kànnaar bii nii mooy sama kànnaar yi kànnaar yi nga xam ne nit ñi léegi dañoo sonn trop ci wàllum euh, euh, kii ci wàllum pour jigéen ak yooyu mm-hmm. lii pour noob la mm-hmm. jàpp noob man dama koy def mën naa ko trop képp koo xam ne dem nga xam nga tubaab Euh, nekkul ku ñu nopp. tubaab nekkul ku ñuy nopp. Mhm. nekkul ku ñu not tubaab dañ koy xaftal. xaftal tubaab kenn mënu koo jàpp sëriñ bu taxaw ne mën naa jàpp tubaab wax nga loo xam ne amul. xaftal tubaab nu xaftal la. Mhm. da ngay woo ay turi jinne jël turam ak turu yaayam am am loo ko suul nga jël ko nga xaftal tubaab bu lépp lu bëgg am ci moom bu dëlmal la du ànd du ànd ak sa tubaab noo lañ ko def mais sëriñ bu taxaw ci internet bi ku gëstuwul xam-xam waxuma la ku gëstu xam-xam moo tax may wax da nga xam ne tubaab kenn mënu koo jàpp képp ku ñaal ci tubaab ne maa ngi dem pour tubaab nga nobal ma ma jàppal ma tubaab wala nga nootal ma ko yaa ngi rey sa bopp tubaab kenn mënu koo jàpp tubaab ku lu ñu xaftal la bisimilah gis naa fi yoo xam ne danga leen a ñaw. Hmm. def xaw ma lu mel ni seet la xaw ma ci lan lay waaw alhamdulilah lii képp koo xam ne dafa bëgg falu. falu falu moo ko tax a jóg. Hmm. moo xam kuy xëccoo maire élection yi moo xam képp koo xam ne dangaa bëgg a falu. Hmm. moo xam mbërum làmb directeur entreprise. koo xam ne dafa daan bëgg a jugaat. lii lépp mu ngi ci. da solal naa la seulement guddi. jiital ko lépp loo bëgg ci àddina mm-hmm. nga bëgg nga kawe yow trop say mbir mm-hmm. jëlal lii nga takk ko nga jiital ko foo mën di jaar ci àddina mm-hmm. danga nga ko ba ñëpp xam ne yow yëkkati nga te kenn du man ci yaw dara ndax dafa rax kaaraange aha téere boobu euh, yi dafa bari façon waaye li ma si mën a leeral mooy téere yi laa si mën a leeral téere yi li ma si leeral mooy jigéen ñi nga xam ne mënuñoo am jëkkër nga xam ne dañuy dem fu ne ci àddina ñaan lu fu ne dem fu ne lu ñu yaakaar mu tas nguur gu ñëw boo waxaale ba war leen a takk mhm. mu jékki-jékki rek daal di kii daal di delluwaat gannaaw képp koo xam ne takk nga ko foo mën di jaar ci kàttanu yàlla di nga am jëkkër ak yeneen yoo xam ne daf koy àndal mhm. comme ñuy defee ci xam-xamu sungu fi yeeg mhm. xam-xamu reen yeeg noonu la ñu xamee leneen loo xam ne ci alxuraan parce que ne wax naa la ñun dañuy liggéey ñaar yëpp dañuy liggéey yii dañuy liggéey yii nii dañuy liggéey sunguf dañuy liggéey jat jat mooy xam-xam boo xam ne c'est-à-dire xam-xam bu ñuul la ñun dañuy liggéey xam-xam boobu ñu ñu liggéey xam-xam boobu noonu la ñuy liggéey beneen xam-xam. ci euh, mën naa dugg ci actualité donte li ñu amoon ci yëpp yu ñu war a waxtaane yaatal nañ ci bu baax a baax. Hmm. xew-xewu jamono ci réew mi loo ci gis fi ne nii ndax sànq yaa ngi def ci seet di ci yaatu. alhamdulilah euh, réew mi dafa toll foo xam ne dañoo war a génne loo xam ne sarax la sarax hmm. bu fekkee dugub la. baax na bu fekkee ceeb la baax na bu fekkee mboq la baax na ndax dafa nekk mbir moo xam ne dafa war a bari ay deret ci année yi nga xam ne dañ koy dugg moo xam sacrifice kat yi ñooy dugg ci biir réew mi xale yu bari dañ leen di sacrifice ñu bari ñoo xam dañ leen gis ci TikTok bi wala ci réseaux sociaux yi ñu ci baree bari dañuy jéem a faat seen bakkan sinap lu doy waar la te nit ñi xamuñ ko ndax am na sëriñ soo xam ne bu la bëggee faagal. dañ naan la ki nga nekkaal envoyé ma photom rek. Mhm. image boobu mën nañ ko ci faagal. sarax si nga wax ñun. Mhm. képp koo xam ne moom nga koy. président 35 saako ceeb. képp koo xam ne mën nga koo génn. 35 ceeb. ay saako ceeb mhm. saako ceeb lay doon. ñu génn ko ñaan yàlla suñu borom def jàmm ci réew mi. bu dul loolu rek réew mi mën naa nekk réew moo xam ne day jaxasoo lool ci euh, mille 2022 bii di ñëw. loolu Ousmane Sonko nit la koo xam ne ku am mystique la ku am ñaan la lu mu yàgg-yàgg dina doon président waaye dina amaat problème boo xam ne problème bu mag lay doon nit ñi buñ wax ngir bëgg Ousmane Sonko lu ko neex Ousmane Sonko lu mu yàgg-yàgg-yàgg-yàgg dinañ ko sulluwaat beneen dossier dinañ ko jàppaat dinañ ko tëjaat kaso te bu fekkee moom tëjuwul bu fekkee moom poussé na candidat élection yi di ñëw moom bu fekkee moom euh, nekkul président. Mhm. nekk wóor na dinañ dinañ duggaat kaso parce que Sonko ay mbiram kaso la fokk mu dugg kaso ay mbiram dooga a doog a naa nga alhamdulilah euh, képp koo xam ne bëgg ngaa bëgg nga yow ñu respecté la directeur entreprise yow laay waxal. Mhm. mbërum làmb moo xam ne dem nga ba da ngaa xewi nga bëgg a xewaat. Mhm. nga bëgg a jóg. artiste képp koo xam ne say mbir kenn waxatu ci dara nga bëgg a falu lii moo si gaaw may naa la guddi nga jiital ko deux fois lépp loo xam ne xëccoo nga ci yaa ci gaaw parce que lii kaaraangay buur la te buur roi de saareel képp koo xam ne takk nga ko da nga mas doon roi ci kàttan na yàlla suñu borom man non loolu taxul nit am ndam nit bu fekkee da koy takk day tax nga nekk roi lii li ma bëgg wax mooy falu moo ko tax a jóg koo xam ne dafa bëgg falu bëgg nekk foo xam ne foo kawe lay doon mm-hmm. en dafa amaale kaaraange loolu rek mooy loo xam ne daf koo tax a jóg waaw kon ñu ngi leen nuyu eh, di leen sant di leen gërëm mm-hmm. di ñaan sëñ Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal ak mbooleem tarax yi nekk senegal yëpp di ñaan yàlla senegal def eh, yàlla na suñu borom def jàmm ci senegal yàlla na sax si jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah